ak sama naataangoo bii di Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf xam naa dama koy bàyyi mu nuyoo rek laataa ñuy tàmbale bi lee jotaay Buur Sine asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Sel maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu suñu cadre bi di nuyu itam nga xam ne saa su nekkoon ñu ngi bàyyi xel ci suñu différentes plateformes yi di amaat mbégte baax kon di leen dégtal jotaay seen. jërëjëf buur di la jaajëfal bu baax a baax di ñuy waat internet yi nga xam ne ñu ngi suivre tamit à travers suñuy plateforme di jaajëfal ba tey rek suñu cadre bi Abdel si loolu buur tey dinañ waxtaanee lu ci mel ni journée mondiale de la liberté de la presse nga xam ne ñu ngi ko jagleel képp kuy laale si wàllum presse muy le 3 mai bi tey laataa loolu damay profité rek saluer geste bi nga xam te ni moom président Macky Sall def na ko jël lu toll ni sesti tuddee ko kooku di Mame Less Camara nekk nekk benn monument boo xamante ne nii kenn dootu ko fàtte képp ku yëngu si wàllum presse même bu la jàngalul sax war ngaa mën a xam lu tuuti ci moom ku ci mel ni man nag jaar naa si ay loxo muy plaisir boo xamante ne nii duma ko mës a fàtte sama àddina ndax am na benn xam-xam bu mu jot a def ci man moom Mame Less Camara c'est un grand vraiment li li mu fi dese nag mooy ay ñaan ñu di ko ñaanal bu baax di ñaan yàlla mu dolli yërmande ci kawam moom euh, Mame Less Euh, comme ni ñu koy waxee gis naa ñu titré aussi Less ne tomb pas mais quand même Less ne va jamais tomber ndaxte nekk na ko xamante ne ni duñ ko mës a fàtte muy journaliste yi ak képp ku mu mënti doon si loolu euh, bu ñuy waxtaanee journée mondiale de la liberté de la presse euh, bu nag presse dafa nekk loo xamante ne nii bokk na ci principe yi nga xamante ne ni mooy fondamentalu démocratie bu ñu waxee presse ba tey mën nañu waxaale démocratie bu ñu paree si loolu tamit dinañ waxaale place yi xam ne Sénégal jëloon na ko si wàllum liberté liberté de la presse en deux mille vingt deux mu nekkoon fa soixante treizième deux mille vingt trois nag ñu gis si benn recul bu énorme boo xam ne euh, dafa jéggi dayoo ko waral lépp dinañ ci ñëwaat ak si cas yi nga xamante ne nii bokk na ci li tax Sénégal daal di jël boobu les recul si loolu tamit ñu waxtaanee responsabilité yi nga xam ne journaliste yi war nañ koo mën a jël ba war a mën a éviter li ñu mel ñu ñëw tamit si si relation bi nga xam ne journaliste yi dañ ko war amal ak lu jëm si wàllum politique ñu jeexalee waxtaan bi ak exploitation bi nga xam ne suñu mbokku journaliste ñu si bëri si ñun ñu ngi leen koy def si lolu laataa ñuy yaatal foofu dañuy ñëwaat si journée mondiale de la liberté de la presse muy journée bi nga xam ne dañ ko jagleel képp ku laale si wàllum presse si loolu ma si massawu euh, bëpp journaliste bi nga xam ne amul boobu la liberté bi nga xam ne waroon na ko am niki tey xam naa buur laataa may euh, sori rek dama lay bàyyi nga am lool ci développé ñu daal di continuer bi lay jàkkaarloo. soxna comme ni ko waxee journée internationale de la liberté de la presse la ñu wax maanaam bés la boo xam ne dañ ko jagleel euh, ñiy liggéey ci wàllu. presse maanaam moom bi nga xam ne eh, moom lañ war a moom seen bopp ñi nga xam ne ñooy yëngatu kon ci wàllum eh, tas eh, xabaar li nga xam ne nag mooy thème bi ñu retenir atum ren bi moom mooy façonner un avenir de droit la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme maanaam ni ñu war a gën a ñoŋalee li nga xam ne moom mooy ay àqu doomu aadama bi ñu ne ñu sukkandiku ci li nga xam ne moom mooy liberté d'expression maanaam Euh, moom sa bopp gi nga xam ne képp kuy nit war na ko moom ci wax xalaatam. Mhm. ci joxe xalaatam ci ci lépp lu mën a doon ah, ci lu mën a doon euh, nit ki war na am benn liberté boo mhm. xam ne da si joxe xalaatam ñu ne sukkandiku si loolu ba xool kon ana naka la ñuy gën a ñoŋalee li nga xam ne moom mooy mhm. àq ak yelleef euh, ci ëllëgu li nga xam ne moom mooy moom mooy àdduna bi comme ni nga waxee léegi liberté de la presse dañoo nemmeeku fii ci Sénégal ne dafa nekk en recul maanaam dafa dellu gannaaw dafa dellu gannaaw lu toll ci fanweeri place ak benn 2022 ñu ngi jëloon 73e ci classement boo xam ne kon reporter sans frontière mhm. ñoom ñoo ko euh, amal euh, wante 2023 bi dañoo gis ne dañoo ñëw kon ba 104 maanaam dañoo wàcc waa lool mhm. kon dafa wàcc lool ci li nga xam ne moom mooy euh, mhm. liberté de la presse mais moom sa bopp bi nga xam ne kon ñii di liggéey ci tas xabaar kon war nañ ko am loolu nag du ñu ko ko sànq li ko mën a jur bëri na. Mm. li ko mën a bëri na bokk na si jafe-jafe yooyu ay journaliste yoo xam ne eh, peut-être dañ leen euh, teg loxo. Mm-hmm. te euh, loolu dafa am rapport ak liggéey maanaam ci liggéey mm-hmm. bi ñu liggéey lañ bi ci mujj moom mooy suñu naataango bii di Babacar Touré. bu Kewloo moom nekk nii mu ngi kaso gannaaw amee retour de parquet. Mm-hmm. boobaag léegi xanaa léegi mu euh, semaine mu ngi fi nga xam ne kon. moom mooy ci loxoy yoon mm-hmm. kii di Pape Alé lu yàggul lañ ko bàyyi gannaaw mu ñaari weer ci nga xam ne moom mooy kaso suñu beneen naataango di Pape Ndiaye mm-hmm. ba fi mu nekk nii mooy wax ak yow mu ngi ci loxoy yoon mm-hmm. loolu boo ci tegee itam bundu yi nga xam ne yenn saa yi dañuy nemmeeku ñu koy bunduxataal xataal ay journaliste ci seen wàllu euh, liggéey euh, bu dul yenn saa yi takk der yi yenn saa yi gis ne peut-être ñu takk der yi lay doon yenn saa yi Euh, def lu lu ne yenn saa yi mu doon ñi nga xam ne sax ñoo organiser événement nga mhm. dem fa ñoom ñoo lay soit ñàkkee kersa wala ñu lay wax ay mhm. kaddu yoo xam ne yenn saa yi lu lu yéema lay doon mhm. lu deewaar lay doon kon daal yaakaar naa loolu lépp daal boo ko boolee peut être ak yeneen i jafe-jafe yoo xam ne peut être suñu ay naataango journaliste dinañ koy dund te ci ay rédaction ak euh, ak yi euh, naa daal loolu lépp boo ko boolee daal kon tax na ba recul boobu mu am ñu nemee ko ci li nga xam ne moom mooy kon classement bi nga xam ne reporter sans frontière dañ koy def mu ñeel nag euh, mu juumul lu toll ci cent quatre-vingts pays euh, ci àdduna xam nga Sénégal jël ci rang boobu kon di cent quatrième lu xaw a day waar la mm-hmm. kon loolu daal wane na ne kon euh, liberté de la presse dellu na gannaaw mm-hmm. suñu réew donte nag ci kanam loolu yëpp it nga xam ne moom mooy responsable journaliste loolu it am na te xam naa loolu bu ñu demee ba ci kanam incha allah waaw Buur comme ni ko waxee rek journalisme fii ci Sénégal dafa nekk loo xamante ne ni euh, maanaam métier bi dafa commencé métti muy si côté policier yi muy si côté mën nañ jàppee tamit si côté nguur gi parce que léegi dañuy gis journaliste yu bëri ñii ñu ngi kasoo ñii ñu ngi ragal am na journaliste yoo xam ne bu ñu demee ba toog si plateau amatuñu amatuñ fa kàddu mooy wàllum ba tey day dem si démocratie bi ma lay wax maanaam euh, kenn amatul ñu bëri am sañatuñu joxe seen joxe seen xalaat si benn sujet parce que ñu ngi xalaat ay suma pare est duñ ma wóolu ay suma pare est ce que duñ ma def li est ce que duñ ma def lale waaye dama jàpp tamit euh, journaliste bu si nekk war naa am ay droit am non seulement am nañ ko mais war nañoo xam seeni droit ba tax lépp sujet bo xamante ne ni war nañ see mën a ñu xam ko parce que tamit am na dossier yo xamante ne ni journaliste waru see wax même si nga nekk journaliste permettre ñu la nga nga nga nga joxe si sa avis loolu tamit kon da ciy baax torop journaliste xam droit am xam tamit ay limitam si loolu tamit euh, dinañ waxtaanee responsabilité yi nga xamante ne ni journaliste bi da ko war a jël maanaam euh, image yi nga xamante ne ni journaliste bi mu koy jël di ko jagleel askan wi est-ce que image yu baax la est-ce que du image yoo xamante ne nii dina indi ab euh, ay jafe-jafe est-ce que du image yoo xamante ni man naa semer benn trouble loolu tamit dina baax torop journaliste bi di si bàyyi xel waaye boo xoolee buur lu ci mel ni ay ay manifestation ñu si ñu si toroxal nit ay image yu doy waar nga jël ko di ko diffuser loolu tamit est-ce que mënul bokk si loo xamante ni mën naa yëngal réew indi ay jafe waw waaw soxna Asel xam nga hmm, maanaam euh, dañ ni liberté de la presse dëgg la gaa euh, journaliste bu ne war na am benn liberté ci liggéey bi nga xam ne mu koy euh, liggéey mais nag liberté boo gis liberté boo gis am na ay limites am na mm-hmm. peut-être foo xam ne war ko jéggi te am na responsabilité comme ni nga ko waxee responsabilité boo xam ne bu dul journaliste sax képp bépp kat am na benn responsabilité boo xam ne day day day day nekk sa ndodd te loolu dañ ko effectivement comme ni nga ko comme ni nga ko comme ni nga ko waxee responsabilité boobu mm-hmm. day bokk tey ci ana euh, ana yan sujet nga war a abordé est-ce que yow sujet yi nga abordé tey mm-hmm. am nga suffisamment d'éléments pour pour pour dugg si est-ce que sujet yi nga abordé tey mm-hmm. maîtriser nga ko est-ce que tey nekkul ne lii ngay wax yaa ngi tooñ nit mm-hmm. wala yaa ngi indi loo xam ne daal mën na indi diffamation mm-hmm. ak yi ni kon donte nag li nga rek am nga liberté mais it kon am nga ay responsabilité yoo ne kon dañ ko dañ ko dañ ko ngàll tey ci sa ndodd euh, lu si mel ni tey yenn sujet comme ni nga ko ne peut-être boo ko waxee tey mën na yëngal réew euh, ak euh, ak yi ni mel yenn bokk na si itam responsable journaliste Soxna Asel muy traitement di nga war a jox li nga xam ne moom mooy moom mooy xibaar bi xam nga nañ tey si jamono yoo xam ne àdduna mhm. benn information ak nga xam ne mooy réseaux sociaux yooyu mën na wër mën na wër li nga xam ne moom mooy àdduna bi ci ci ci benn simili rek mhm. bëri jotandoo li nga xam ne moom mooy xibaar bi mais mhm. journaliste nag bokkul ak peut-être tey benn simple nit koo xam ne dafa yor benn blogam wala dafa yor benn benn chaîne am parce que loolu tey bëri na tey bëri ñoo xam ne pour man mënu ma leen journaliste peut-être buzz la ñuy wër wala boog ay vues wala la ñuy bëgg di voir tey métier bi dafa bëri loo xam ne mhm. euh, daf ko rax mhm. ci biir loolu lépp nag ki nga xam ne moom mooy journaliste bi dafa war a prudent journaliste bi war na loolu journaliste tey bu jotee information bi war na ci def traitement bi nga xam ne moom moo ci war mhm. tey euh, yaakaar naa loolu bokk na ci li gën élémentaire ci li ñuy jàngal ci journalisme tey euh, collecte nga collecté d'abord sa information doo ko diviser ñetti épa ñetti mm. yooyu effort il faut nouvelle bi euh, jaar fa ñu mm. comme information du journaliste bi fi mu uteeg nga xam surtout mm. vérification bi surtout journaliste bi foofu ngay def publication boobu dafa war mm-hmm. kon yow tey foofu ngay utee ak nga xam ne du journaliste dana amateur la rek bu nekk ci li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy milieu bi ñu nekk it ci période boo xam ne li ñuy woowee intox ak euh, fake news dafa bëri ah. intox tey ak fake news dafa bëri trop mm-hmm. trop trop ak technologie yi avancé mm-hmm. kon nag journaliste bi war na gën a yokk li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy mm-hmm. moom mooy vigilance tey journaliste bi euh, war na it war na it moytu yenn yoo xam ne bu génnee tey dinañ ne kat kii si moom la génnee par exemple man mënu comprendre tey journaliste Mm-hmm. benn personne quiconque envoyé la benn communiqué mm-hmm. rek euh, nga balancer ko comme ça peut-être sans au préalable nga toog mm-hmm. vérifier ko vérification bi a loolu mënu ma ko concevoir tey même benn euh, vidéo sax bu ñu nga traité ko wala yi ni mel waroo ko balancer directement war nga toogaat jël temps bi war bu fekkee dañ ci accusé nit wala yooyu nga jël les dispositions faut pour jéem a woo nit kooku am tam dëkk yi tam nga xam ne moom mooy moom moom mooy avem pour bu bu buñ la jox rek nga dégg dara indi rek tëll rek publier ko mhm. wala nga séq nit ki dara sax ba mu tax euh, yow mu envoyé la mbir rek nga jël mbir moomu kii journaliste warul warul mel noonu waroo war war yor démarche boobu information boo jot ak nu mu mënti mel war nga jël le temps qu'il faut euh, def vérification bi nga xam ne kon mhm. moom moo war balaa nga koy publier information dafa nekk loo xam ne dafa dafa dafa garaaw dafa sensible mën na yëngal réew gis nañ ay réew yoo xam ne tey euh, soxna Asel ay information yu jàll mhm. rajo moom moo ko taal euh, ba ba li xam ne moom mooy maara day taali mhm. kon bu responsabilité bi nga xam ne kon képp koy liggéey ci wàllum euh, média soxna mhm. Asel euh, war nga ko am bokk na itam relation bi nga xam ne tam tey ñi nga xam ne ñoom ñooy journaliste yi war nañ am ak wéy politique yi xam nga ñi nga xam ne ñooy politique yi ñun daanaka booy xool li ñuy gën a def ci suñu information wàllum politique lay doon. Mhm. boo xoolee suñu matière surtout première bi njëkk. Mhm. politique la politicien yooyu nag euh, soxna seen ñoom li ñuy bëgg yëpp moom mooy seen message jàll. Mhm. li ñuy bëgg yëpp moom mooy seen message jàll li ñuy jéem tam dinañ yenn saa yi tam dinañ jéem. ngir jéem la corrompre wala jéem a def tout daal ba ñoom li ñu bëgg mu demee noonu mais yow journaliste bi nag yow yaa am sa fula yow journaliste bi yaa am sa fula yow journaliste bi. yaa xool ana ban relation nga war am ak nga xam ne moom mooy homme politique bi pour man tey dàquma journaliste xaritoo ak li nga xam ne moom mooy moom mooy politique man par exemple bu ma jëlee sama cas bëri naa ay xarit yoo xam ne ay politique lañ mm-hmm. mais tey séq na ak ñoom benn relation boo xam ne tey kenn kenn kenn kenn kenn duma ci peut-être mhm. kenn kenn kenn kenn lenn daal duñu ko defloo mhm. waaw parce que seq naa ak nekk journaliste da ngay jékki ñi ànd ak politiciens yi dañuy yónnee ne la bindal ma article effectivement ay takkal ay vidéo yónnee mais yow journaliste bi tamit am na benn responsabilité ñu delloo ba tey si ay responsabilité yi am na loo xamante ne nii war nga koo bañal sa bopp parce que tamit euh, ku xaalis tax nga def loo xamante ni waroo koo def bu xaalis bi jeexee tamit gàcce rek nga si am parce que comme ni ko tubaab di waxee les écrits restent mais les paroles s'envolent lépp mhm. loo bind day des parce que article boobu xamoo fii ak ñaata at lañ koy liiraat dinaan diw moo ko bindoon waaye nekkul woon dëkk loolu tamit nekk na loo xam te ni war nañ see bàyyi xel en tant que journaliste. pour man dara jaru ko ah dara dara jarul yenn yi euh, sa crédibilité moo la war a gënal lépp. Mhm. pour man sa crédibilité moo la war a gënal euh, lépp loo xam ne nii kon euh, daal mën ko am ci li nga xam ne kon moom mooy métier du foofu rek maanaam journaliste pour man tey war nga am benn caractère bi war nga benn caractère bi war nga benn responsabilité mhm. war nga am war nga mel noo xam ne daal nekkul. ku politicien bu la gis rek mhm. jéem la mhm. ci loolu tam peut être moom brosé wàll si yenn saa itam corruption boobu peut être lenn mën na ko waral muy précarité bi nga xam ne tamit nemmee ko nañ ko soxna Asel ci biir milieu mhm. presse bi yenn saa day gis naanam loo xam ne peut être mën naa ne mën nañ ko woowee peut être ab ab ab ab exploitation par exemple bu gisee ay salaire dérisoire yoo xam ne peut être da koy dañ koy fay ay ay ay ay naataango peut être loolu mën na pousse mën na mën na la pousse. par exemple mën na la daal le fait que le fait que ñu corrompre la mais a lu mu mënti demee. mais loolu tamit pour wàllum si wàllum exploitation boobu bokkoon na si loo xamante ne nii war nañoo wax salaire journaliste surtout ku yor diplôme war nañ koo jàppee ne lii la parce que journaliste bu dem ba yor ay diplôme am kooku dafa jàng warul mën a ñëw di liggéey stage stage fi dem fi gis journaliste yu bëri yoo xamante ne même boo waree dem liggéey dañ lay wax defaral stage parce que du mënoo dem ñu jox la liggéey alors que yow yaa ngi def sa métier journalisme mais ba demee wax ay stage stage def stage yu jeex yoo xamante ne nii mooy loolu. Mm-hmm. kon métier journalisme xam nga buur neexul nga fay sax xaalis def benn formation nga pare ñu la métier bi amul xaalis. Mm-hmm. parce que muy man di keneen ñun ñëpp moom la ñuy wax. waaw métier journalisme bëriwul xaalis. na xaalis daal bu ñu lekk ak ñu lekk. voilà daal si kaw patron de presse yi. voilà Ah, ñoom maanaam ñoo war a jël maanaam loolu ñu am dem jël ko bokk ak nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy personnel parce que mm-hmm. tey loolu ngay am yow nga patron président loolu ngay am loolu personnel bee koy liggéey de dëgg la lépp loo ci am kon personnel boo ko liggéey kon nag nga ciy am jëm ci say mm-hmm. nga xam ne ñoom ñooy say say say nekk journaliste sax bu dafa nekk loo xamante ni yombul si jamono ji parce que maanaam danger yu bëri ngay nekk di di jëflanteel yow mën a bind kii si kii tey loo xamante ni dafa positif beneen camp bi moo tax euh, Sénégal réew mu mel ni Sénégal du question de wax pour leneen mais dafa nekk réew moo xam te ne bind fi yombul parce que mën ngaa xëy bind si Sonko waa Macky ne fii nga far nga xëy bind si Macky waa Sonko ne fii nga far alors que yow moo tax objectivité comme ni ñu koy waxee tout le temps yombul biir Sénégal parce que foo bind ñu ne la fële nga far mais yow journalisme yow journaliste bi na nga fexe ba na nga rester sur la ligne à ce que kenn du la yàpp kenn aussi du la corrompre loolu nekk na lu am solo. effectivement nga jéem nga jéem a objectif rek jéem euh, a jéem a en tout cas li ngay def nga def ko en toute en toute objectivité far sax peut être man amaat na amaat na mënul ñàkk mais maanaam métier journaliste moo xam ne. sur côté mm-hmm. politique métier journaliste moo xam ne man pour man journaliste mënul journaliste di politique ba pare objectif. Mm-hmm. man loolu laa jàpp tey maanaam boo jugee ba nga xam ne da nga bëgg def politique. Mm-hmm. fësal ko gis nañ ko am na journaliste yoo xam ne dañoo oh, journaliste dañoo journaliste woon ba si kanam ñu war a ne carrément léegi dañoo far fii dañoo ànd fii ñoom du pour politique ñu ne politique donc après sax peut leen surtout si nguur mën nañ leen dénk ay mhm. responsabilité ci ci wàllum presse mais dèjà xam nañ fi ñu far mhm. man de journaliste boo xam ne xam na ba mu leer na man kii dafa far objectif bi de moom dama siy dudee journaliste boo xam ne leer na ma ne kii ci camp. far sax far du nekk loo xamante ni day ñàkk. parce que nit nit voilà far nga far far moo ñàkk. mais mm-hmm. nag jafe-jafe mooy foofu far ba pare nga objectif. di ko wane si say article ah. et dafa ko non dafa jafe far ba pare nga objectif loolu jafe la. kon daal journaliste bu jógee tam bay engagé wu ci man ci man ngir man ci côté politique. la mm-hmm. summi mbubu journaliste yi peut être mu ne nekk ab mm-hmm. être ci ci benn camp euh, ci politique. mais nga nekk. Euh, journaliste ba pare bëgg koo booleeg euh, mhm. politique wala bëgg a défendre daloon na si ku si mel ni Ahmed a défendre intérêt benn gi non day xaw a jafe euh, mhm. man daal kon jàpp naa ne peut-être euh, ñaari kii la yoo xam ne mënul ànd wala boog boo ko mhm. bëggee def sa objectivité dina jafe dina jafe lool waaw buur kàddu yi am na am na solo torop am na solo si loolu ba tey xam naa damay waxaat si carte presse yi nga xamante ne nii pour que ñu jox ko journaliste buur dafa nekk loo xamante ni dafa jafe te instant bi euh, toll nañu foo xamante ne nii euh, am na endroit yoo xamante ni en tant que journaliste bi pour nga dugg fa nee nañ carte presse parce parce que lu su mel ni carte maison dañoo commencé di ka bañ si yenn yi kon euh, carte presse bi xanaa dañuy ñaanaat rek mu nekk loo ni dinañ ko yombal ay journaliste normalement boo jàngee ba am sa diplôme nga am papier yi nga xamante ne ni war na si pourquoi pas ñu jàppale la tamit jox la ko ndaxte nekk na loo xamante ni dafa jafe dafa dafa jafe trop pour journaliste bi am ko. waaw oh, yaakaar naa nag euh, warul jafe comme que ñoom ñoo lancé lancé nañ en grande nga xam ne moom mooy euh, campagne boobu ngir ne dañuy fas nga xam ne moom mooy euh, milieu presse bi muy lu ñuy lu ndax tey mm-hmm. xam nañ ne ñi ñu wax dañoo bëri. maanaam kenn mënatul ràññee. soo bu baax la. xam ne tey kii mooy mm-hmm. journaliste bi kii boobu dem ba nga xam ne teg nañ commission boo xam ne. balaa ñu la koy jox nañ la saytu saytu am fi ñu la jaarale lépp kon mm-hmm. ba ba daal ku dem ba am boobule carte moom on te considère comme journaliste nga euh, mm-hmm. bu bu bi yaakaar naa warul jafe délai yi itam ñu bëri di kaas ne yi day yàgg pour ñu kii ko même commission bi dinañ xoolaat kon euh, mm-hmm. loolu ba daal ku déposé carte bi ci un minimum de délai laa jox li nga xam ne moom mooy moom mooy sa carte nga mën a exercer pleinement li nga xam ne moom mm-hmm. mooy moom mooy sa métier bi sa fonction de journaliste. dëgg la buur xam naa fii la ñuy yem rek si loolu may euh, masawaat képp ku nekk si presse bi tey di journée mondiale de la liberté de la presse képp ku si liggéey tamit te amoo boobu liberté tamit ñu koy masoo bu baax ku si mel ni Babacar Touré ñu ngi dégg ni ki tamit ni dafa amoon ay jafe-jafe si wàllum wërgu yaramam ba mu ngi hôpital principal su ma juumul ñu di ko si bu baax a baax euh, képp kuy liggéey mm. si si wàllum uh, média xam naa dama lay nga tàggatoo rek ñu daal di tëj ba ginnaaw ëllëg waaw xam naa balaa may tàggatoo sax waroon naa koy njëkkee comme fi nga njëkkee muy uh, suñu naataango di Mame Less Camara suñu doyen laay wax suñu mm-hmm. bu mag uh, moom Mame Less Camara njiitu réew mi comme li ñu def nag rafet na tuddee ko li nga xam ne moom mooy si si boobu nga xam sax nekkoon na fa nekkoon na fa formateur mm-hmm. yàgg fa loolu mm-hmm. rafet na wante it euh, dégg naa ci ñeneen ñu doon ñu naan mënoon na ko tuddee de son vivant loolu it bu ko defoon da doon que Sénégal dañuy nemmeeku yenn saa yi il faut nit dee. Ah, ñu doog ko rendre yenn hommage yi doog ko tuddee réew mi waaw loolu it kon nañ ci bàyyi xel acte bi nag rafet na dañ sali mm-hmm. mais it loolu njiit réew mi di rendre hommage nit ki de son vivant fa solo tey nit ki ko mm-hmm. ko mu xam ne kat ndeysaan moom li liggéey te gëm reconnaissant na ko. Mhm. mu dund ko euh, ci de son vivant. dund mbégte loolu day nekk voilà effectivement mu mhm. dund mbégte bi de son vivant loolu day mhm. nekk loo xam ne kon euh, lu am solo lay doon di daanlee kon suñu naataango it Babacar Touré ñu koy souhaité bon rétablissement sama frère. Euh, Malang di rakam moom it desaan moom it moom it sama waaye la journaliste boo xam ne inte eh, boobu eh, exemple la man exemple damay jël exemple si moom. dama bëgg moom liggéey mais dafa nekk benn. type de journaliste boo xam ne day il inspire quoi mhm. ci liggéeyam ci fonk bi mu fonk liggéeyam ci dëggoom mhm. kon frère am waaw frère am Babacar Touré ñu ngi koy ñaanal établir mhm. te ñaanal ko mu jafe-jafe yi nekk retrouvé waat nga xam ne moom mooy bërëb liggéeykaay moom te surtout ak nga xam ne moom mooy famille di profité kon euh, jaajëfal mbokk internautes yi nga xam ne saa su ne rek ñu ngi bàyyi xel ci yor yoru Sene Info di leen jox euh, dig daje jotaay <laughs> Sene Info <laughs> di leen jox li daje kon kañ euh, la <laughs> ajuma ajuma incha allah jërëjëf Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf si yooyu lee idée si yoyu lee xalaat yu am solo yi nga xam ne joxe na ko développement yu am solo yu muy def c'est vraiment pertinent moom tamit euh, nekk na journaliste boo xam ne macha allah euh, di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal suñu cadre di jaajëfal bépp internaute bi nga xam ne ñu ngi suivre à travers suñuy plateforme di leen jox dig daje. ajjuma incha allah jërë ngeen jëf.